أعاذني الباقي من الشيطان عند ممري وفي الأوتان أعاذني الباقي من الشيطان عند ممري وفي الأوتان أعاذني الباقي من الشيطان ñu ngi taxaw ak sëñ Cheikh Diong jiite accueil euh, abaissement kon sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax xam naa nga bëgg a ñoo wax rek tolluwaayu accueil abaissement fi ñu toll nii euh, ci xayma ci tënk fu ngeen ci toll nii ak seen lëkkaloo ak euh, restauration. nu ngi siyaare bu baax a baax di leen jégalu di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi delloo sant yàlla bu baax a baax moom mi ni fekk la woon màggalu daaw te suñu borom subhanahu wa taala ci ñi ñu ko fekk ren. bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci activités yi di ñaan suñu borom mu bañ a doon suñu mujj bi daje. Euh, fii nag mooy makkanu accueil hébergement daje fi nag ak mbooloo mu baree bëri mu tokk daje fi ndax ci ab lim rek 160 personnes moom moo fi nekk bàyyi ko nag ci ay gox yu fasantikoo ci mbool mépp mboolem rek foo xamante ni ab section accueil Baye Khadim am na fa am na ca membre boo xamante ni jugee na fa ñëw daje fii fi nga xamante ni mooy makkanu accueil hébergement waaye nag li jiitu ci loolu moom fii ñu nga xamante ni fi lañ koy defee fi lañ koy defee bokk na ci fi lañ koy defee nga xamante ni mooy bâche bi moom fexe nañ ba membre yi nga xamante ni moom moo ëpp ci li nga xamante ni moom mooy membre ñiy liggéey daanaka fii lañ ko tànni fi ko jëlee ñi leen gën a jege tamit nekk waa Taïf ñoo ñu ci des beneen daa leen téw nag kenn beneen section benn bu ci nekk gis na ci sa bopp ndax donte ñaari membre la wala ñetti sax jëlee nañ ko fi mu ñëw fii moom mooy mbooloo mi ngay gis ni ñu àndandoo di liggéey nii waaw jërëjëf mel ni kon dikk ak ñun ci tànneef euh, sous commission bi nga xam mooy accueil hébergement ci maam ni nga ko tànnee ci yenn section yi ba ci yenn regroupement yi ngir ñu teew fi ànd ak yéen liggéey bi waaye bu mënee xam xayma rek li fi waa restaurant li ngeen jot ci wàllu xéewal ñu xam ko waaw kon xam naa damay tàmbale ci démb rek ndax dafa mel que ne magal gi démb la tàmbale woon démb togg nañ ñoom euh, fukki mbana andil ñu ko ci añ reer bi tamit togg nañu fukki na ak ñaar andil ñu ko fii ñu toll nag tey ci bisu magal gi togg nañu ci añ lu toll ñaar fukki mbana andil ko foofu lañ ci xayma moom ngeen ñu fekk nii ñu di ko séddale nii ci instant bi ci loolu daal ci lañ tollagoon ci wàllum xéwal comme réer bi ñëwagul nag mënuñu gën a xam ne dool waaye bu sooyee ñëwee tamit bu soobee ci moom dinañ mën a wax programme boobu tamit ni mu dem ni allah waaw kon baax na sëñ Cheikh jërëjëf ci xam-xam ci tolluwaayu liggéey bi nga xam mooy restauration rek ci li ñu ko waxee ci li tàmbalee démb ci wàllu ñam ba ci tey ji ci suur màggal bi waaye ci tànneef yenn membre yi nga xam ne ñooy liggéey bi su commission boobu di accueil yi tànneef tamit jiitu ci section tubaab bi xam ñooy dalal mbooloo mi comme ni ko ñëpp defe rek kon ñu ngi leen jaajëfal baax xam naa incha allah dañ fi dellusiwaat ci ngoon ci yeneen tolluwaay incha allah ak yenn commission yi jëwriñ yi ko seq rek xëy naa bu nga ko mën a lim xam waaw euh, mën naa nekk sax ndax maanaam bu ñu dojalee euh, ak i hébergement bi yëpp dafa nekk ay bànqaas yi xaw a bari ndax lu ci mel ni wàllum ziar yi dafa leen ko dara jaale am na ku fa nekk su fekkee na aju tur yi tamit a wax tur yi mais lenn lu ci nekk daal dañ ko décentraliser mu nekk ab sous sous boo xam te ni ñoo yor wàllu woowu noonu di ci moo demee kan ziar yi même protocole bi nga xamante ni moom mooy euh, akay ay yi nga xam ñoo kilifa yi fi ñëw am na si ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor base bi nii am na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor séddale bi fii am na si ñi nga xam ne ñoom ñoo yor activité bi di dem ak ñëw am na ci ñu séddale ko dañ ko séddale ay pàcc yoo xamante ni kenn ku ci nekk daal di nga gis sa bopp noonu daal fi leen toll ñu arrêté na incha allah baax na sëñ jërëjëf ci leeral yooyu rek ci tolluwaay ak ay comme ni ku mujjee wax rek séddale nañ ko ci ay sous commission ngir na liggéey bi gën a euh, kon jaajëf kon loolu la leen jëlee woon rek ci sous bi di accueil hébergement ci kanam incha allah ñu jàll yéen ci yeneen sous commission incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah عندما مر وفي الأوتان عبادة ابتدات بسم الله وهو كفاني ذوي الملاهي وجهت lil maliki rahmani wa shakuri zaka rahimu bi nabi rajimi wa alihi wa sahbi in nujumi billahi baratu nasara